ñii fi ñëw ñépp ñooñu seeni gan lañu ak ñii waaj ñëw te ñëwaguñu kon loolu munta ñàkk rawatina nag sunu bokki Casamance yi Casamance lañu dëkk ñu ñëw ci bis bi ngir yàlla kóllëre dañoo laajte ba agsi nee na jóge Casamance ñëw ndakaaru daal di dafa am seen benn mbokk faatu. seen benn mbokk faatu. ñu wax ko Serigne Xaasim Mbacke. ñu wax ko Serigne Xaasim Mbacke. mi ngi ci yoon wi di ñëw. mi ngi ci yoon wi di ñëw. ni daal. ni daal. bala ñu koo denc. bëgg nañu. nga tiim ko. nga keroog. keroog. fii la yendu. ci kër gi. avion bi war a ñëw 9h. war a ñëw 9h. 21h. 21h. maag sëriñ bi ñoo ànd. moog sëriñ bi ñoo daje. waa Casamance yëpp daje. ni sunu néew bii. ni sunu néew bii. bala ko bala koo kenn tiim. bala koo kenn tiim. sëtub Seexul Xadim. sëtub Seexul Xadim na ko tiim. keroog ñoom ñii ñoo def loola. keroog kon bu ñu jógewaatee foofa. kon bu ñu jógewaatee foofa. ñëw ak seen pas-pas. ak seen pas yitte. ak seen yitte. te ñoom ci seeni gëstu. deux dafa ànd ak sama benn magam. ñu jógee Arabie Saoudite. ci réew mi. gëstu lislaam ci réew mi. ci gëstu bu xóot. ci gëstu bu xóot. dem nañu fi ñu naan Pakaaw Sinki Saba. dem nañ fu ñu naan Pakaaw Sinki Saba. ñu fay gëstu. ñu fay gëstu. mag ñañ fa fekk. mag ñañ fa fekk. ñuy wax ni. sama baay. nee na baayam. baayam baayaatam baayaatam fii la daan toog di jàngale alquran fii la biñ ko xaymaa ci jamono ci jamono ci jamono mu ëpp dix siècle kon ñu ni ndekete am na ñoo xamee ni bi rasulullaahi wootee am na ñu nekk Casamance nangul ko comme nu wayzul xare ni defoon ndax loola bokk na ca gisu loola bokk na ci ñi ko doon bind te loolu 2000 la woon ça fait 18 ans ban askan la ñu ne askanu Soose moo tax askan woowu rek ngay gis ci càmbar ci ay maam doo ci gis ku ab julli ab soose rek ci réew mi ci réew mi doo ci gis ku dul ab julli ñu topp seeni maam nag mu dem fa moom def fa semaine jàngat buñ naa pakaaw ak dëkk buñ naan sinku ak dëkk buñ naan saba ñu yëg ni nangami seekal ñu ngi fiy jàngale alquran kon ñooñu seeni sët teewee kon day mel ni lépp ma kon Serigne Cheikh daal jataay bi sa jataay la lu ñu fi def yow lañ ko defal Cees gii Serigne Touba mo fi indi serigne salih Touré lolay dogalou looloy yalla nangou dogalou dogalub yalla nak day tax boo tëddee nelaw mu nek fi 38 ans di ci jaamu yalla di fi jaamu yalla di jaamu do ñepp nak yalla nek ci jub di jangal ñepp ak jub di dimbali nit ñi guddi bëccëg suba ak ngoon kon kookee lu tak ci mom rawatina ab taw rew mepp war nañ ko baye xel ndax cheikhul khadim du samp luy daan upp na foofu kon sëriñ cheikh xamal ni jotaay bi mu andak ay rakam andak ay talibem andak wa waa li tax ñuy wax ni xol bu sedd rek la ndax lañu defon fe sen bop rek lañ ko defal ndax sëriñ sëriñ Saliou Touré moo toog fii tudd doomam jee wala turandoom wii fii la toog turandoo sëñ abo bi sëñ Saliou Touré ko joxe ñu bari dañuy defee ni moo tudde sëñ abo doom waaye dafa waxtaan ak sëriñ Saliou mun ko sëñ abo moomee daal nañ ko ko bokk tudde mu ñëw léemu tudd ko tudde ko sëñ Abo Madiyaane Jaxate ndax lépp benn fii la toog ni ko Cees gii ci wàllu deret yaa ma fi gën a jege ndax ba ma bokkeek sa ndey ca mbaakol la doog a ñëw fii kon loo xewle maa ko war a taxawee sëñ Cheikh mi bi muy ñëw ci dëkk bi sëriñ bi da koo ni ko bu ma sañoon Cheikh yow lay dëkkal batay kon le rek ak bokk gi mi ngi koy doxal kon ñu ngi sant ñëpp di gëreem ñëpp di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mi dara tawul suñu borom boole ni defal nu wéru koor wu ñu nungu ndax wéru yi ñu ne day jàngale ni gileem tukkal la loo ko yen ci lu baax attan na ko loo ci si siku ci li bon attan na ko wax na ci sëriñ Abdoul Aziz démb li yàlla ni moo gën moo gën nee na chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan wa man shahida minkum shahra falyasumhu weeru koor wi ci lañ wàcce alquran alquran lu ko gën amul téré yi ya ko jitu it ca lañ ko wacc kon buñu dajé ci fukki jëk yi di jàng alquran fas yéenee waxtaan ci l'islam waxtane ak bok waxtane rew mi kon loolu waref la wo xamni ñepp la wax motax citoyen simple wala citoyen habitant worul citoyen acteur moo gën a wóor développement lu dara dul ay loxo yu bari rek ñëpp bokk jàppandoo ñiy jàngale décentralisation ñu ngi nii toog ak ñoom Baye Kader Lo loolu nag kenn dajaa jiituwul nitu diine ñu ñuy defar kenn warutaa jiitu nitu diine Cees xamel na la njukkal ndax nii nga taxawoo kilifa ji ñëpp la war ndax ñëpp la jur ndax nee na doom ñaar la doomi ruux ak doomi geño léeg sax doomi ruux jël loo xamee ni ci seen baay doomi geño du ko jël ne Cheikh Ahmad Tidiane nii ñëpp di ko la mu yore woon alkatmiya ka ku ko jox dani ko sama doom laa ko yéene waaye yow la ma ko yàlla jox nga xam ni kon mbaax alal yàlla yow nag bi nga dee doomi géñoo ba pare di doomi ruux ndax dafa ñëw ci sëriñ bi ci korite ñuy waxtaan mu ni kon demal waxtaan ak seex te loolu ab joxoñ la ñu taxaw mu ni ana seex loolu ab joxoñ la mag ñi nag duñ jël nit ngir ñoo ko jur dañuy jël nit ngir lañu ñu bëgg ci moom magaca loolu daal ay seere la yoo xamee ni fu mu jonkoon ci réew mi dina ko def fu mu nekk ci waxukaay yi dina ko def dafa am loo xamee ni boo ko waxul ku ko mën a wax du safa moo tax ñu wax ko yaakaar naa ne dina neex bàyyi saa waalo gajaga lool ak bàyyi jibi mbay lool ndax bu ñu soñoon ñëpp ay baax waaye sëñ saal dinay gën leen te loolu moom ñoo ma ko bokk kon ñu ngi sant ñëpp di sant suñu bokki jigéen ñi ak suñu soppe yi seen Mouhamadou Mourtada nga xamante ni moom seen mag la démb tey doog a dikk day wax ak Alioune ak Pape Gueye ni ko lu waay di def ci koñ bi na waxtaan ak Murtada Murtada Jéey yàlla dogal na dafay nekkoon ak mag mi ba ñu bari jiitu bàyyi ko fi mu nekk fekk ay moroomam ñu jiital ko mu nekk fekk ay rakam ñu bàyyi ko xel kon ñaare lu mu xewle bu ca yónnee moo koy wol boppam ko ñaanal sunu borom subhanahu wa taala lee mu téye fee ñoom la ko téyel ndax da ko naa heure bu gisee sëñ Murtala agsi na ci koñ bi waaye bu fa duggee te gisu ko day mel ni agsiwul te bari na ciy morom nee na ñu ngi ci ñaanal sunu borom baax sëñ Murtala lañ ko tuddee moom Cheikhul Khadim ndax baayam sëñ Mortala Jéy taalibe sëñ Murtala bi jëkk Cees moom la sëñ Murtala te njëkk a dal Cees te doomi Seexul Xadim doomi sëñ Tuubaa yi kenn xamul lu ñu doon te duñu ànd ak ku ko matewul bari na ku jébbul sëñ Murtala kër baayam la ko fekk bari na ku jébbul sëñ Murtala ci feneen te dëkk Cees mu boole kook baayam kon loola bu amee kon ñun ñëpp war nañ koo bàyyi xel bàyyam jiitu mu des fi nag ba sa njaboot déggal ay magam yërëm ay rakkam jubóog ay dëkkam loolu nag yóbbu ñu ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yàlla téyel ko boppam te taxawaay yi def mënta ñàkk ñépp la war ñu wuutuñ ko ci loolu daal ab tàmbali la borom yëf yaa ngi ñëw kilifa yi sëñ xaasim nee na ko mi ngi ci yoon wi suñ bokki Tiwaan ñu ngi ci yoon wi suñ bokki Caraba yi ñu ngi ci yoon wi ndax weeru koor ñepp mi dég une lañu xalaat ba tisbaar kon ñu ngi sant ñepp di ñaanal ñepp kaamil bi ñu fi jang xaraf bu ne fukki yiw la fukki yiw la moo tax suñ koy jang jarna sol sol li weñ di daw ba mu xam suñ koy jang jarna sol sol li weñ di daw ba mu xam jang nañ ci kamil di mujjel nak sunu mak soxna bint neena mom moy sen nday ndaxte sunu bay bay ci jigen mo ci mak andak rakam soxna antat ak dekkando yi ak njabot gi ak sen mag yi marikate ak mam jaw mi nga xamanteni amul njariñ nee na moom amul njariñ nee na da koy tooñ ndax jarbaatam la ndax bari na lu muy sol moo ko koy xotti di ñaanal bint ndax mbokk alali yàlla fa mu dëkk sori na lool démb la defe ni mooy bis ba ñëw fekk ñëpp di nelaw mu dellu ñëwaat tey kon daal saas nee na cant gaa ngoog lépp ngoog ci ñëw nii moo buggaan tey dani duñu ñaar kenn lañu na yéex a ñëw gi rek yaakaar naa ni xëy na buggaan mu ngi ci yoon wi léegi la ko waa seen TV woo ni ko ñu ngi ci yoon wi di ñëw sëñ Cheikh Diaby nekk 2S di seen jaboot fam ñoo xamee ni nee na njabootu boppam lañu ndax nit bu la dénkee boppam sa njaboot la te Cheikh Jaabir mii moom nee na moom njabootama looloo waral tey ku ne xam na ni journaliste yi mooy rédacteur en chef de 2S mu bàyyi fa loolu lépp dawalal boppam otoom ñëw antenne bi nekk fii mu ni ko na nga ñëw jël si lii fi xew loolu tamit ñun bàyyi nañ ko xel bu baax a baax nee na moom seen soppe la lool bu sañoon bés bu set bu xëyee gis ko moog yaayam nag ndax bu jëkk bi yaayam la jiital ñëw bi ci desaat yépp mi ngi kon ñu ngi koy sant bu baax a baax ni ñaan sunu boroom yal na barkeel liggéey bi di sant ku mu warta sant ndax yi ay avance la kilifa yi ñëwee jël seen kàddu dem muy dëcce la jaan moom ba muy nekk ci daara ji la ko jox doomam doom ja tey takk na soxna ba am nag njaboot te di fekk na mu jàng ba noppi kon loolu yàgg na de ba koy jox doom ab taawam mi ngi ca daara ja di jàng mu boole kook ay yéreem indil ko niko yonent bi la ko tudde way yaa ci doy te ak neegi at yu bari la ko xamni dem na ba jang ba dem ba mass di liggey tak soxna amul njabot yag na de yamu ca mu jël terrain bu reuy bo xamanteni ni bokk na ci région de Dakar tofal ca ni ma lu ma am maag ko bokk te loolu nee na yàgg na de ba tey bàyyiwul lu mu am jox ko ca doomam yépp mooy tudd rekk te tur yi ñoo koy waxtaane kon loolu mënta ñàkk kon ñu sant ko moom gërëm ñaanal ko yàlla yàlla bàyyi ko xelam bàyyi ko njabootam lim ci bëgg lépp yàlla defal ko ñu ca des ñëpp ñii di ñëw ñu mat a ñu soxna Ami Ndiaye soxna Oumy dañoo def lu rëy dafa am doom te nekkul ci diine hmm. te nekkul ci diine tudd tur woo xamee ni turu jullit ñu bëgg koo tuubal ndaye ma ko indi ak tàntam ci moom ni ko da ab jullit ñu bëgg ñu tuubal ko te yaa ngi dafa gént Cheikh Mouhamadul Muntaqa ku ndeyam indi ku ndeyam indi ndeyam nekkul ci diine bëgg mu dugg ci diine te yaa ñu doy mu ànd ak ñoom ba ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa lii muy wax yàggul dara nee bim ko waxe Cheikh Mouhamadul Mountakha mu téye ko ni ko togal ñama andalon ñama andalon mu yaay kilifa yu mak ci rew mi yewi ñep moom loola waaye juróom a nga nee di yaakaar naa ne xale bi dina ñëw fii tamit ci koñ bi soxna su baax soxna abi jàlloo am ab sëtam ñëw indil ko ko ni ko kat daa nekkul ci diine ñu bëgg la koo indil nga tuubal ko mu tuubal ko ba pare mu mu ni ko may nañ la ko ma nga ca daara di jàng kon loolu lu mat a xam la ndax yokk nit ci lislaam euh, kenn amul ak payam yàlla rekk ko kon loolu ñu ngi leen koy seereel ñu koy royee seen kilifa sëñ saaliwu ndax bari na ñu tuubal ci Cees ak li ko wër lii xër la ak kontaan rek ak bég rek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 شهار لي وما بتن مني منورا بفتح لحتن بارت لي بارت لي في من جلا ومستكن والساحر والباطن فيك سكن ملكتني مهتلت لي يا ذا وكنت لي بالانتهاء بالامن ساقيتني من بقيبك يحترن سافدت جملة خلاتي بقرن شهدت لي بمن كفاني محن يا من لفلكي بفيدك صن جسدت لي سر النفاس الفتن بقل فاء من حمولي ساتن نفعتني بذي الفروج والسنن وسي والأمراك عصمت منن نبهتني أسبت عن ياسا يا من لحوم يتامى لتصن هربت هدا بما ربي لحن لقري الدر وحتى لم يحن تيسي الأمراض صحة البدن وبحر بي بلدن بردا تنسي الأمراض صحة البدن وبحر بي بلدن إلى الجنة التي وعد متقون لحب القديم الذي كان لحوق بكرم الباقي القديم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 أصحاب الجنة هم فيها خالدون أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك عبر الماء السلام في الآل والأصحاب ربنا السلام وسط مقاما دونه كل مقام يا نور كل هابد سام وقام أنت الذي أخرجنا من السلام بك النور من حباك بالكلام بصرك جميل يا خير إمام بما نويت فيك زهن تمام أنت النبي ورسول الحمام بك انقياد سالقين بالسمام لك رداك رب الورى كل مرام لك بحي يا سيدي أسنى اقترام جاد لنا جاد لنا جاد لنا باق تعالى عن منام بك فانت سيدي خير الانام نبت سكره عليك كل هام وكل سهر والكتاب الاتهام نبت سكره عليك بقلام وقيرها يا زعجام الكرام عديتي واسكر من بالانشرام يا خائدا لم الهك المرام تبتي ربي زائرا بسن نسام لك وحبله حبوت بقسام هم فيها قالدون حد يدي إلى جماد ثانية من المحرم أطوف دانية هديتي إلى جماد ثانية من المحرم أطوف دانية ملكني الماهي أدايا كافية كل أزم خين أين كافية فرقته كقدم لا ثانية لا من قدام ليست فانية يسر سيد حرة الداحية إلى جنان إليها ساقية هديتي إلا النبي سافية بشارة لا قل دافية إن قلامي بالنبي الهادية إلا جناني إلا جناني من خلاق بادية خدمة خير العالمين الجالية خاليني فضل من قالية أحمد دنا أحمد دنا أحمد دنا ربة جهل خالية تهلي وتثي خالية لأحمد مختاري والتقى قافية قافية تدوم ليس القافية درجة المغتال درجة المغتال ليس القافية إذ الحياة لعباد سافية ودي لربي خالي قاسيه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 وعلى آله وصحبه وقديمه وسلم تسليما وإنه لكتاب عسيس له محفلة ورسل كريم وإدخل الجنة فقد فاز فلله لاقته الأولى فلله لاقته الأولى وجهت وجهي بتلاوة الكتاب لمالكي وأرتجي خير الثواب وجهت وجهي في تلاوة الكتاب لمالكي وأرتجي خير الثواب الحمد لله الذي قد منام بقري شيء خير ما صحنا نشكر ربنا الذي تقبل مني ذات كتاب أنزل نذكره على توجه الدرر إلى شوانا وقفنا من حضر هدن ونور ويدن بركة في شكر من بتفاء مدك للمصطفى للمصطفى للمصطفى شكر حكيم يحني المدافع بيس المحني كون النحب الله سيد الورى كون النحب الله سيد الورى كون النحب الله سيد الورى كون من حب الله سيد الورى بانا لمن هجاح نورا توسلين بالمصطفى مفدلي لي خاد تقديم المفدلي توسلين بالمصطفى مفدلي لي خاد تقديم المفدلي إن رسول الله إن رسول الله إن الرسول الله فاق البصرة والجن والأملاك هذا فقرا إن الرسول الله إن الرسول الله فاق البصرة إن الرسول الله فاق البصرة والجن والأملاك هذا الفقرا بركة كتاب أبا التوني ما جنور كوني لا نفر القرآن خفل كلما لم صلاتي والسماء جنت مكاتب ذوات حددي لله وسط نقدي يقري باقي ما أود إلا جناني دون أو كبدي ساتي الباقي مسات تدوم في سورة أنفال عبس الكريم ساتي الباقي مسرة تدوم في سورة أنفال حبس الكريم لله ما كتبته من جيسس لله لله ما كتبته من جيسس لله ما كتبته من جيسس ورسوله لقتم تكسس هدي التيم لبي شكر وإن به قديما قديما ساشكر قديما ساشكر من يلي الله ويرسل ويسعي السامي والقبول من دكسة إلى دخول الجنة إلى دخول الجنة قد بلا أسن وخير فتنة من دكسة إلى دخول الجنة قد بلا أسن وخير فتنة حنيت بالجزاء والأجور وبالثواب أنا صدور في التمحت وبيرابه لينا فائز أو سالهم في الثمر بيراده لينا فائس أو صالح أدخلت في جيب رسول كل صلى عليه من أجل كل ديني كتاب المصطفى مصطفى مصطفى مصطفى لا خير وينتهي إلى شوى يدير ديني كتاب المصطفى لا قير وينتهي إلى شوى يدير الله جل أحد وهو الصمد ليس له من واد ولا ولد ولم يكن جل له كفوا أحد والثمن بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد رسول حابد شهدت أن الله رب الخلق وأن أحمد رسول حق وما سناك إلى كافة للناس بسيرا ونسيرا وما سناك إلى رحمة للعالمين أكرمني إكرام من ما سافل وكل ما أردته منك كالفال آتيتني يا ربي من لدنك زكا حكيما فرديت حنكا باركت لي يا ربي في الخروف وقيرها وجدت بالمخروف ملكتني بكونك الكريم ما قاد لي تقصير وتكريما أهديتني ما قلب أنسى كلما مدى من الدري ما سلما كافأني من ماله كفا أحد بمال ساق كل من جات أكرمني بقل هو الله آت ربي ولم يكن له كفا آت ناجاني الله مكرم الشمت تناجيا به كفاني الكمت وجعل يكرم أنفع الكرم وداري بهدد الشرم أسأله كوت القصيد غارة العدل المفيد يا قي يا قي صلي بالسلام على الذي جاء بأسر كلام على الذي جاء بأسر كلام صلي وصلي وتقبل الكلام من نار الخرافات بما يفاقزن من مخرافي من على آريز الخرافي بما يفاقزن من مخرافي لناس من قلوب قيد الرباق يا من كفاه زلق والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا قي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك ربك الخديم ساسلات مسلما على موسى سيولا ناجاك عبدك الخديم ساسلا مسلما على موسى سيولا يا ربنا بصوت المعوني وجل خالد المروني يا ربنا حبيب حقي كوثري يدمى آيات واجوري كشري يا ربنا وجل خلي الكافرين بلا مدن بحق الكافرون وعشيا بده أنت الباقي لقراني سبك التباخي سلم تعزيم على سيدنا محمد بنا مرشدنا والي وسبي وجه الأولاف زعم الخيرات من خير سراب واجلب زعمك الخيرات جميعا يا مرتميرات بصوت النصيب وتبكبا وفي دار زهو إلى ديوان بإخلاص جلي إلى جناد بإخلاص رجل يا زبر صل بالسلام على الذي بابا شريك كلام سيدنا محمد والآل وشابي في الآل والمآل وتكفنا بحق صوت فرخ عزدا يا من خلق واكتب له إن شاء الله عليه بسلام في أهلي وشبي باقي سلام بكل عرف من تين أروفي برساتا يلمو بالمقروفي سرين بنيان ديتنيان فقيل فين غودغان nangu ñu mbàkke lépp la ñaane xanaatal xarnu bi sëriñ bi ñoo ngi dee ci ñaan faqi dafay nangoo dagaan nangu ñu mbàkke lépp la ñaan نخانا تلخرودي نيانغي دغانا تي مصبا منيت مودار زبا اقاقي اندي مصبا مي الله جبل خرنودي اقاقي مولم ايركم اقاقي زين باينو ام اقاقي شيخي بام بام نخانا تلخرودي مر مر جبنغي توبا نيانغي شبا كايو جوم بانو باي باي دنو غوب اي مباكا جيسو الخرنودي او مقامم دلوام waye mu ci ñoo ni tawat tawatal te bu wa sey la mu ñu xonu bi makka da ngay boroy mboot te tawat kilat re ma da dapat mais la boote xonu bi mbàkke ma tànkam lu ci ñaan ngi ma bon tay ko añaan mur yëpp ko ñaan mbàkke ngi bëgg dekkal xanu bi woy woy makka ñoo ko torox yalwaa na gisoo ku ya la sarax garabu daanoo xabi bamba jaal xonu bi